justice euh, Sénégal dañ koy faral di ŋàññi effectivement et pourtant euh, sooy xool bu baax quatre-vingt-dix pour cent des décisions posé wul problème. dëgg parce que ça la politique. tant que décision bi amul impact d'un point de vue politique amul problème ça veut dire que non seulement euh, justice sénégalaise fonctionne normalement. Mm dire aussi. que nos juges sont, sont, sont compétents, sont en mesure de rendre une bonne justice. Mhm. De façon générale, c'est ce qui se fait. Maintenant nag xëy na dafa am 10 pour cent des décisions yoo xam ne qui sont problématiques c'est les décisions médiatiques c'est les décisions euh, politiques parce que en fait seen impact seen enjeu mooy tax tey jii soo jàppee benn euh, un leader de l'opposition pour quelque wala de un leader politique pour quelque raison que ce soit nga incarcéré que tëj implication yi muy am par rapport aux mooy indi problème bi loolooy problème mu décision yooyu. donc c' est un fait justice sénégalaise fonctionne normalement on a aussi des juges capables. Mm-hmm. de bien tenir la justice donc euh, de façon. en fait des magistrats capables de bien tenir la justice le droit et c' est ce qui s' fait. Mm-hmm. juridiction tey jii wala élément yi nga xam ni fa la gën casse du point de vue des réformes mooy d' abord bi si institution bi si organe bi si gën mag. Mm-hmm. conseil supérieur de la magistrature. Sénégalais yi ne sont pas d'accord si conseil supérieur de la magistrature ni ñu ko composé notamment le fait qu'il soit présidé par le président de la République. suivi du garde des Sceaux. parce qu'on dit que euh, bi kii la euh, séparation des pouvoirs au nom de la séparation des pouvoirs le conseil supérieur de la magistrature doit être réservé aux magistrats. la séparation des pouvoirs. et que le président de la République génn. au niveau du conseil supérieur. de la et son ministre de la justice. en tout cas génn bàyyi le conseil supérieur de la justice parce que en fait c' vrai que la présence du président de la république day am impact. sur la nomination des magistrats. parce que conseil mooy nommer les président ku ko neexul peut à la limite mën na ni duñ la même s' il y a certaines garanties qui sont prévues à ce niveau donc xëy na kooku c' une réforme et le président de la république il est hyper fort dans nos lu mu munul amul moo tax et organe bu mu présent rek influence am dafay fort dafay dafay kii même s'il est de s'il a quelle que soit sa bonne volonté wala mm. sa bon foi influence am day am si mais est-ce que loolu mooy signifier que la justice n'est pas indépendante pour moi non c'est pas ça qui signifie que la justice n'est pas indépendante mais c'est que pour man la président euh, gën xam nga ñu amuñu président buur la am dans le subconscient wala la manière dont fonctionnent nos institutions veri buur la am te kooku day euh, influence am au niveau du conseil day même su fekkee ni du point de vue textuel l'indépendance est assurée l'indépendance est garantie mais rien que sa présence day remettre en cause cette indépendance ndax à cause de son influence loolu mooy le le problème parce que suñu institutions yi dañu faible tey ji président de la République surtout conseil supérieur de la magistrature kan moo ko naan déedéet aucun benn amul benn magistrat buy taxaw si kanamam ni ko déedéet parce que tu penses que yow ta carrière pourrait en pâtir que la nomination de Adama que ça soit une bonne une mauvaise nomination que ça soit conforme ou pas kenn du jox di ko déedéet loolu mooy loolu mooy le problème au niveau de sa par rapport à sa présence au niveau du conseil supérieur de la magistrature beneen réforme mooy tey au niveau du du conseil moom tamit gis nga tey conseil constitutionnel amatul professeur de droit. ah non. jeex na avec la dernière nomination amul professeur de droit pour la première fois depuis 92 nga xam ne si leen indi conseil constitutionnel mais parce qu'il a pas d'obligation de présence d'un professeur de droit justement. ok donne le conseil constitutionnel aux nominations il peut y avoir des magistrats des profs de droit des avocats des inspecteurs généraux d'État. il peut avoir. waaw ñooñu la noonu mais pas tey jii nommé nan amul professeur de droit. pour man c'est une aberration conseil constitutionnel Sénégal warul toog tudd am professeur de droit sept membres ba mu nekkee cinq. Mm-hmm. y a toujours eu professeur de droit ba mu nekkee sept ñu ni léegi professeur de droit am amatu fa ko mooy mandat wu professeur Seydou Nourou Tall bi est-ce que du njuumte nekkul lu ñu occulté ba gisuñu fa. mandat mandat Seydou Nourou Tall dafa jeex ñun name beneen magist ñaari magistrat au conseil. loolu xam nga <laughs> c'est problème la beneen réforme bi mooy il faut revenir pour man aussi sur la réforme de 2008 xam nga en 2008 en 2000 en 92 à l'époque d'Abdou Diouf dañu diviser woon cour suprême en trois mhm. conseil constitutionnel conseil d'État cour de cassation. conseil d'État mooy lan moom. conseil d'État dafa amoon compétence en matière administrative lépp luy contentieux administratif. mu moom dox ma naa ne en si la Ablaye di jël conseil d' état boole kaa cour de cassation. mu mhm. nekk benn juridiction mu nekk cour suprême bi. boole compétence conseil constitutionnel ñu bàyyi ko mu continuer existe pour man réforme boobu en fait cohérent wul par rapport au système judiciaire sénégalais le système judiciaire sénégalais le système de droit c'est un système à dualité de droit c'est-à-dire dañu am droit privé mhm. am droit public cour de cassation dafa compétent en droit privé conseil constitutionnel compétent en droit public on doit revenir sur cette dis de delloo si ñoom ñaar euh, mu am ay mais nag ñu wàcc ka <coughs> c'est-à-dire mu am ay juridiction yoo xam ni ba si suuf a suuf matière euh, droit public rek la ñuy gérer ay tribunaux administratifs ak ay tribunaux ak cour administratif d'appel. Mm-hmm. fee mu am ay euh, juge yoo xam ni droit privé rek la ñuy gérer loolu dana wàññi. liggéeyu magistrat yi liggéeyu juridiction yi danaka parce que daf koy daf koy def si yokkee juridiction yi daf koy diviser seen liggéey ba pare itam dana yokk xëy na moyen juridique juge yi parce que dana tax ñu recruter yeneen juge pour ñu nekk si kii yi quoi si euh, au niveau des juridictions. juge juge am na si beneen ah, affaire boo xam ne am na beneen affaire may ma benn wala ñaari affaire rek ñu ma si yokk euh, gis nga Sénégal juge bi mënul wax mënul su joxee décision état bi su ko appliquer juge bi mënul si dara. Hmm, fokk c'est ñu wote loi boo xam ne juge bi mën na ne état bi décision bi ma jël appliqué ko injonction. ok wala mu ni que décision bii ma jël soo ko appliqué wul jour de retard bu nekk daa fay temps kooku day garantir plus de droits aux citoyens mais loolu amu fi tey juge bi su rendre décision au nom de la séparation des pouvoirs euh, état bi lu ko neex def su ko neexee appliqué su ko neexee du appliqué. juge des libertés. waaw pour désengorger les prisons est-ce que tamit mandat de dépôt yi waruñu xool ni ñu koy joxee. on en parle mais mandat de dépôt yi par exemple tey jii je pense que ak euh, bracelet bi mun na ko wàññi. mun na wàññi mandat de dépôt bi mais itam je pense que am na affaire yoo xam ni itam soxlawul mandat de dépôt. Hmm. am na affaire yoo xam ne vraiment juge bi en fait li muy délivrer mandat xëy na mën na ni bare na trop. parce que pour ay defee des affaires yoo xam ne quand la personne encourt moins de cinq ans de prison wala genre affaire yooyu mais pourquoi soxlawul mandat de dépôt. pour man soxla mandat de dépôt et puis foog ñu wut des peines euh, daaw bi ñu jëlee élèves yi saccagé woon école wakaam bi xaw ma yóbbu leen kaso yof xaw ma mais man dama ni waa mais xaleelu 14 heures 12 ko yóbbu kaso ñooñu doo leen génne fi ñu raxas école yi pan toutes les vacances ñu raxas dem raxas école yi école yi ñu yàq ñu dem raxas ko pendant toutes les vacances ñoom ak seen parents yi keneen dootu ko defati mhm. ak yeneen travaux mbedd yi ni mu tilime. waa UCG c'est vrai ñu ngi siy góorgóorlu. mais soo ko boole woon ak ay ñu daan wax galère yi ñooy raxas ñooy bala tëdd bi ñu mais soo ko boole ay ñoo raxas kii. mais ay jamono da ngay romb ay prisonniers ñuy. effectivement police di leen loolu ñu foog ñu wut non non ñoo xam da ngay a jeexal. Hmm. ñu hmm. alternative. nit ñi di purger peine yi seen kër mais ak ay travaux d'intérêt général.